أنت ربي ومنذري بوداد فكسر لجلد بمداد أنت ربي ومنذري بوداد فكسر لجلد بمداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuy bu baax di leen jottali kàddu yoo xam ne kàddu yu cant la ak soññee ci guddi gu tedd gi nu jëm di fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm nga xam ne ci la feeñe woon sankub sëriñ bi sëriñub sëriñ bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kune xamit ni ko fonke woon ak lim ci bind ak lim ci wax ak ni ko daa dundale yàlla def nag ñu daa ko dundale fii ci xuru Mbàkke di barab boo xam ne ñu bari xam nañ fi ko sëñ bi tegoon ndax daanaka man nga ne li ëpp ci dund sëñ Mbàkke Mor Anta Sali fii la newoon mook soxna jaara sëriñ bi ki mu bokkal lépp di Cheikh Abibullahi topp ci moom fii lañ ko denc taxoon muy nemm ko barab bi barab bi lool ak di ko fonk ak di fi yabal ak njabootam ñu di leen fi denc yabalit Cheikh Ibra mu ñëwoon fi sanc fi yabalit suñ bay jaxate mu ñëwoon fi sanc fi loolu lépp ngir dundal barab bi loolu yi nag tax nu am fi suñ barab bu bopp boo xam ne dañoo am taw yi yoon wi soxna si daa jaar jóge ci néegam di dem ca teen ba ci digg yoon wooyu fi la kër gi ne daara ji ne ma teg fi sama doom di Ahmadul Qadim mi mag ci sama njabot mu di fi jàngale alquran gàmm gi itam ma daa ko dundale fii daaw rek lañ ko yemale Madiana siis Madiana ci sama kër gi ndax yërëmoon nit ñi ngir. xatuk waxtu wi ak jamono jooja ni tawat ji demee ci réew mi waaye fa lillahi alhamdu wa shukru yàlla soppi na am nañ tawfeex kon nag nu sant bu baax sant yàlla sant sëñ bi boroomam sant sëriñ bi ndax màggalug daaw gën nanoo woon kan mooy sëñ Tuubaa waaye yaakaar naa goog ren gën nanoo woon kan mooy sëñ Tuubaa ba ko xam xam nga boo waxee it ak boo waxul ñooyam li xew ko gisandoo waaye daal duñ damu li ñuy def kay mooy sant yàlla rek sant sëñ Tuubaa sant ko boroomam ci yàlla féete gi mu féete ak sëñ Tuubaa ba ñëpp xam ko loolu nag moo tax may féddalewaat gàmm gi rek bëgg mboolem fédération day yi fi daa màggale jàngkat yëpp xisbul eh, xadim nooru daari ni eh, ñëpp rek ñoom ñëpp rek ak xidmatul xadim ak ñi nga xam ne kuréelu xidmatul xadim ak kuréel kuréel yi fi daa daje di jàng ci gàmmu gi yëpp rek ñoo xam ne fii lañ koy defe mm, ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha mm, ku dikkiit Ahmadou mii moo koy jiite ànd ko ki ak i am ak taalibe yëpp ñu def ko nañ ko daa defe xanaa di soñee rek ci ber góor ñi ber jigéen ñi di ko defee na ko sëñ bi bëggee ndax lam ci diggee ak lam ci dële ñu am ko ni mu ko ni mu ko diggee taxdimuhu bi sunnati ixuuduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin maadimi kon nag ndigal laa ngi noonu ahmadu nga ànd ci ak say bokk ak bokki taalibe yëpp ngeen dundal ko am na ci àgg ak jàmm defe ko ni ko sëriñ bi bëggee te tasa ci ngërëmul sëriñ bi ndax sëriñ bi rek lañ ciy wut ci lépp kon nag yàlla na ci tase ngërëmul sëriñ bi kullu aamin wa antum bi xayr asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu أنت ربي وكنتني بمدادي فكسوني بجنة بمدادي أنت ربي وكنتني بمدادي فكسوني بجنة